diine ji yëpp rek diine di ko beral waa ndakaaru itam nga xam ne ñoom ñoo moom bés bi sang bi nee na di ko beral waa Dakaaru ñi nga xam ne ñoo moom bés bi wax nañ leen ko itam saa su ne dañ leen di wax ne bés seen bés da ngeen koy taxawee ba mu mat sëkk nee na bu ne ñu seen bés da ngeen ba mu mat sëkk ah, tey sànq wax ngeen ko eh, yàlla dogal imaam Bachir dolleeku si nee gis nga bi yàlla dogal imaam Mouhamadul Basir ñëw dollee ko fi. ah kon nag. kon nag. loolu beneen yen laa. kooku beneen yen la. incha allahu. incha allah. ah yàlla na leen yàlla gën a dëgëral. sang bi ne yàlla nu yàlla gën a dëgëral. di ko wàccee ci jullit ñi fi teew ñëpp. di ko wàccee ci jullit ñi ñëpp. jiital si daayira góor yi ak jigéen ñi. jiital ci daayira yu góor yi ak yu jigéen ñi. ndax ah, ñoom day wax dëgg yàlla ay jàmbaar la. ndax ñoom day wax dëgg yàlla ay jàmbaar la. fu ñu nekk ñu nga fa. fu ñu nekk ñu nga fa. guddi ak bëccëg. guddeeg bëccëg. ah naaj ak sedd yëpp. naaj ak sedd yëpp. ñu ngi ci rek. ñu ngi ci rek. ak sunu waykat yi nga xamee ne ñoom itam. ak nga xam ne ñoom itam. ñu ngi ko àndandoo ak ñun. ñu ngi ko àndandoo ak ñun. fuñ fi mën ne ñoom ñëpp a ngi. itam fuñ fi mën a ne ñoom ñëpp a ngi. day may bañ a juumaat. day bañ a juum rek. yal na leen yàlla fay. fay a yàlla ah, yàlla dogal na nag. yàlla dogal na nag. waxtu wa jeex. waxtu wa jeex na. ndax itam. ndax itam. jotaay bi yàgg na. jotaay bi yàgg na. waaye nag. waaye nag. man di damay faral di wax ne. sang bi ne day faral di wax ni. dañu koy jaral léeg-léeg itam. daf nu koy jaral léeg-léeg itam. waaye nag ala waaye ala yu ci bokkul. yu ci bokkul. dañ koy génne. dañ koy génne. mu bañ cee dugg. mu bañ cee dugg. yu bokkul ci jotaay bii. yu bokkul ci jotaay bii. nañ ko ciy génne. nañ ko ciy génne. mu bañ cee dugg. mu bañ cee dugg. ñu bàyyi ko muy jotaay. ñu bàyyi ko muy jotaay. alquranul karim. alquranul karim. zikrullahi. zikrullahi. ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. loolu rek la. loolu rek la. waaye terewul. waaye terewul. ah Laye Momadou. Laye Momadou. nun moom. nun moom. noonu la ñuy ànd ak yéen. noonu la ñuy ànd ak yéen. nun ñëpp. nun ñëpp. benn lanu. benn lanu ci noonu dañuy ah, di laayante biir biir rek ala xaal ah, loolu mooy diine ji bu kenn yaakaar ne bu kenn yaakaar ni ñuy bàyyi dara muy jàll di bàyyi dara muy jàll te du lu jaadu te ak yoon jax ci ñun day ak yoon jax ci ñun maanaam ak feebal walla dara déedéet. naan ak faible wala dara déedéet. du loolu. du loolu. <laughs> loolu mënul ne. loolu mënul ne. loolu mënul a nekk. loolu mënul a nekk. waaye nag. waaye xaal. ala xaal. lépp lu bokk ci jotaay bi. lépp lu bokk ci jotaay bi. nan ko ci bàyyi. nan ko ci bàyyi. lu ci bokkul. li ci bokkul. ñu génn ko ñu génn ko ci. ndax ah, nun faral di yaatal sunuy dënd lool. ndax. noonu danay faral di yaatal suñu dënn lool. ndax loolu lan ci fekk. ndax loolu lan ci fekk. waaye léeg-léeg itam bëggunu. waaye léeg-léeg itam maanaam benn doxalin bi. di am dëgër bi. du nu gënal. du nu gënal. waaw waaye léeg-léeg itam. nag. dina koy laaj. dina koy laaj. afaaban nada faydan. waaye nag wa amala saadatan. فساس بذاك الخلق لينا وشدة لينا وشدة آه. من مم آه، امام الفزازي نهاد امام الفزازي تزور من ابن المهيب تزور من ابن المهيب مو فك تيرب جامبور مو فك تيرب جامبور تخميس كبا نوفي تخميس كبا بار جيل بايرب تيرب جيل بايرب تيرب بك دانا كين دوت خو دي دانا كين دوت ما خيت يو خم ньо ньо ньо Fazaas yi boo ko waxee. nee ñu bari duñ ko xam. ñu bari duñ ko xam. ndax moo moom moo taalif way bi. te moo taalif way bi. kële daka taxmis la kële daka ñeenti bayti la. ñeenta. ñeent mu dugal ci juróomeel. mu dugal ci juróomeel. waaw daaneel boobu ngay gis. daaneel boobu daaneel ba mujj. daaneel ba mujj. boobu la ci def. boobu la ci def ku ma si mën a andil benn baytu. waaw. foofu la ay waxam ya loolu lépp fa loolu lépp Fazaaz yi moo ko wax daaneelal bii googu foofu la waxi ibnu mahayib tàmbale foofu la waxi ibnu mahayib tàmbale loolu rek la ci am nee na loolu rek la ci def

ba tey fasasi mooy wax ba léegi àggali mu ne fala nuuruhu yaxfa àggalil waaw loolu la si ibnu Muhayib fala nuuruhu yaxfa wala loolu rek la ci def léegi téere bi ju tudde ko ibnu Muhayib nafsan wallaay fi nufuusi karimatan waaw raat xubbaho ba tey fa damulayni wallaay yahmau dimatan wallaay muhibu rasulallah diinan wasilatan wallaay walimla wa marata waxi fas waxi ibnu wayba moom nga daanee le noonu loolu la ci dolli jël bay rëptéer waaw waaw waaw wallaay laay waxtu wee rek wallaay laay voilà téere boobu nag saga téere boobu téere bu barkeel la téere bu barkeel di taalif ba ka di taalif bu xamoon ne bu xamoon ne moom la ñuy yóbboo rasuululaay buy julli ca jullukaay ba ah kooku loolu xamu ko woon de xolal pay ak sama borom xoolal pay ak sama borom looy def lu ne. loy def lu ne. na ci ikhlas am na ci ixlaas am te yàlla tax te yàlla tax. kuy way ku ne. kuy way ku ne. na yàlla tax na yàlla tax. yàllaa lay fayal boppam. lay fayal wala pay guri go wala pay guri go yonent bi gën ci kaw suuf. bi gën ci kaw suuf. bu ñu koy yóbbu. bu ne mu xeet di jiital ko yëpp xalaat. di dem ca bërëbam mu jiite mbindeef yëpp yu ñu mën a gis. ak yu ñu mën a gis bokk na ci liñ koy tagge ibnu hay boobu waaw wala loolu. fas maa mi gis nga fa ibnu muhayib nee ne bu duurun wa bu duurun wa nuurun googu foofu la ibnu muhayib tàmbale foofu la ibnu tàmbale lépp fasage ñu di ko yóbboo yonent bi ñu di ko yóbboo yonent bi malaaka yeeg ñi ñu mënul a gis ñëpp ñu nga ca jotaay ba ñu fay wax ay waxam kuy defati del loolu de ku ko waxoon ne sa mbir doon na àgg foofa ah lay Momadou wala loolu loolu mooy ilmun yun tafau bi yun tafau bi ga sal lay nee na loolu mooy ilmun yun tafau bi Seydou sahlihat balawol maɗa wallay kono ɗumo bil hilmi an cuɓɓoɗirada wallay rahimu bida fadli wal adli wal anada ah. aliyum manal al kadre wal fahre wa sigre waaw bu googu jeex wallay seyd liinan wa shiddatan wallay bu fa wallay liinan wa shiddatan fële nee ba mu àggee ci rasulun nee ba mu àggee ci rasulun ci la Seydina Limaamu doon dabu waat bàyyi ma la Seydina Limaamu lay doon dabu bàyyi ma laa wax ma laa wax kii wala kii wala doon ki ngaa wax ka mu doon wallaay moo ma daawar ki ngaa ma daawar kii wala wax moo la kan ma kii wala wax moo kan boobu boobu bu jotaay. nee na boobu jotaay. allahu akbar. ila mawlahu xadra dawluhu dama daan toog si mbaarum jàkka ji. wallaay. xoolal yonentab yàlla yonentab yàlla ba bañ kay wax fekk na génn na àddina bu yàgg bi mu dellusee yëf yi fekk mu validé ka boole ko ci liñ ko yóbboo jàmmala mu dem mu dem ay xalifaam yëpp ñu di leen yóbboo noonu ñu di leen yóbboo tey jii ba fi ne yow si ñi koy def si nga bokk mu goog waaw waaw mu goog wallaay wallaay wallaay wallaay dañ daan toog si mbaaram jàkk ji ak suñu maam Babacar Diop ñoom ak ak mag ñi rajo bi dañ ko daan def defe naa juma ci ngoon wala yaakaar naa ñuy teg euh, ay ay kii ay sikkarak waaw këri waaw mais boobu moom boobu buñ ko masaa teg buñ ko masaa teg da ngay gis mag ñi toppasi da ngay xool su ma ñoom Babacar Diop ndeysaan bëgg ko lool ñoom ñu toppasi si walaay nga xam ne kii kat ah lay Mamadou yàlla nangul na yàlla nangul na li ma indi woon foofu nee na li koy woon foofu mooy rek rek ne mbir mu ne mbir mu ne ñaara koy jiite ñaara koy jiite mooy dëgër mooy dëgër bu ko laajee bu ko laajee yolomal yolomal nooyal nooyal bu ko laajee bu ko loolu mooy mandarga bi yonent bi sallallahu alayhi ak ku ñëw ginnaawam ku ñëw war a jiite dara a lu mu mën a doon lu mu mën a doon mu nga defal tàmbalee sa suñu borom. nee mu nga tàmbalee ci suñu borom. ni mu malee la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ni mu rasulullahi. daal di ne wala zina ma. lan la ca teg. ashiddaaw alal kufaar ruhamaau baynahum <laughs> dëgër allah dëgër ci dëgër weddikat yi ci weddikat yi am yërmande am yërmande ci way gëm yi nooyal yaatal dënn waaye du feebal waaye nag du feebal nit ñi xàmmeewuñu loolu nit ñi xàmmewuñu lool libaas ñang ne libaas ñang ne tabeek soxor tabeek soxor la mbër ya mas di boole kuy bañ ci ngir kuy ñoo la daa yenn doole voilà. mooy am ba ci suñuy jotaay. mooy am ba ci suñuy jotaay. léeg-léeg rek. léeg-léeg rek. nga am noo demaat. nga am noo demaat. léeg nga bàyyi mu jàll. nga xikma moo tax. naa xikma moo tax. waaw bi sallallahu alayhi wa sallam. bi sallallahu alayhi wa sallam. dane bul dëgër ba ñu mën laa damm. dafa ni bul nooy ba ñu mën laa wañ. bul bul nooy comme jigéen ñi bu ñuy fóot. comme bu ñuy fóot. ni ñuy wañee noonu bul nooy bañ del laa def noonu. la wañ. waaw noonu la. fële dafa ne fa saasa. ne fële dafa ne fa saasa. lii naan lii naan mu ne fa. mu ne fa. ci sabab si loolu li sabab ci loolu ci sababu ci sababu yaa ngi may dégg dëgër bu ko laajee bu ko nooy bu ko laajee ko laajee ci la jubbanti ci la jubbanti ah mbindeef yi mbindeef looloo tax شدة شدة موتو لو أعمل سعدة موتو لو أعمل سعدة لأن نين ويرولون جاسم نين ويرولون جاسم مدون مبل مدون مبل دكا دون ليجي لو دكا دون ليجي لو دكا دون ليجي لو جاسم جاسم دكا دون جيفون دكو دون مبل دون مبل من أفاد الندى من أفاد الندى ببلنا ببلنا أكتبه أكتبه أكتبه ba kenn mënu ko cee dab kenn mënu ko waaye nag waaye doon na jëfandikoo jaasi jaasi di liggéeyloo jaasee mu ne ci loolu nag la jubbantee mbindeef yi lii nan bu ko laajee mu nooyal waaye wa siddatan bu ko laajee mu dëgër lool message baa ngi noonu kon nag laay Mamadou waxtu wee jeex waaye lu waxtu wi jeexi jeex waaye nag lu jeex ndax bëgguma woon benn yoon bëgguma woon benn ñuy egseeti ci ñuy egseeti ci waxtu yii nii waaye nag ala kulli xaal dañu sant yàlla nanu sant yàlla ndax li nu fi dajale ndax def nañu ko def nañu ko muy alquran bi muy alquran teg si sigrulaahi loolu dañ ciy sant yàlla loolu jotaayub yàlla lu mu yàgg yàgg yool bi di gën a bari teewul itam muy sàmmonte rek ak eh, maanaam coono yeeg coono yi teew ak ñu waaw yu mel noonu yooyu yëpp dañ koy sàmmonte waxtu wi jéena amaana ba lan bëggoon du fi xaj waaye bésëb tey bii bés yi gën màgg ci bés yàlla la bokk. bés yi ci bés la boo xamee ne. yaakaar naa ne. yaakaar ku ci teew de. ku ci ah santal yàlla. santal yàlla. daal. santal loolu rek moom la nu mën a wax. loolu la nu mën a wax. bésu Seydina Limaamullaahi alayhi salaatu wa salaam. ak bésu njabootam. ak bésu njabootam. ku ciy faral di teew. ku ciy yàlla. waaye bii da ci raw. waaye bii da garaaw bii mooy bésëb gën ji mindeef bii mooy bésëb gën ji mindeef Seydina Limaamu Laay Seydina Limaamu Laay mi nga xamne mo waral lépp. mi nga xamne mo waral lépp. ginnaaw sunu borom ginnaaw sunu borom moom la yàlla tan moom la yàlla tànn ci biir yonent. ci biir yonent yi. moo ko ubbee ndeysaan. moo fa min imaamillaahi. fa min imaamillaahi. ilaa jamii talamizi wal mu'minin rijalan wa nisaa kabiran wa saghira assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mujibuhu أني أسلم عليكم أسلم عليكم وأسأل عن حالكم خيركم وخيركم وعافيتكم, وعافيتكم ودياركم, ودياركم فما جم فما جم الحمد لله الذي الحمد لله الذي خلق خلق خلق من وجعل منهم من وجعل منهم رسلا رسلا من واصطفى من الرسل محمدا وجعله أكرم الرسل وخير العالمين وجعل أمته أكرم الأمم أكرم الأمم mu ne maa ngi sant yàlla. mu ne sant wala mboolem xeeti cant yi. aji sax la ñeel yàlla. mi nga xamee ne. moo bind mbindeef def ci seen biir. ay yonent ay yonent. tànn ci biir yonente. Muhammad def ko muy gën jaa tedd yonente. di gën ji mbindeef. kon yonent yi Seydina Limaamu leen leen gën. moo leen gën. te gëme gënu leen ndànk de. gënu leen ndànk gëneel gëdu ndànk de. gëneel gëdu ndànk de. gëneel gëdu ndànk de. na du gën gu ndaw. gëneel piir la leen jël. ku dul Seydina Limaam ab taalu bi nga. ab ulul azmi mina na rusul. muy juróom yi nga xam ne ñoo gën a fort ci yonente yi ñeente ñooñu ay taalu bi lañ ci moom waaw Seyna Issa Rouhou Laye wax na ko fii. Seyna Seyna wax na ko. te ne xam na ne. ko ne xam na ne. <laughs> lu léegi mi la bokk. ñoo ko démb gëm ka tey. ñoo ko gëm démb gëm ko tey. Seyna ko gëm démb gëm ka tey. ni ñu gëmee Seydina Limaamu. ni gëm ka tey. gëm ka tey noonu la ñu gëmee Seydina Issa. la ñu gëmee Seydina Issa. démb démb gëm ka tey. moo taxaw mu wax ni moo wax ni. ku dul sama baay ku dul sama baay ab taalib ab taalib man isaa man isaa isaa rasulullaahi laay wax de nee na isaa rasulullaahi laay wax bàyyi leen kañ wax isaa ibni mariam kañ wax isaa ibni mariam ca biir alquran ca biir alquran moom laay wax mooy wax moom lay wax nee na moom lay nettalee isaa mu ne man isaa mu ne man isaa taalube la taalube la taalube la ci sayyidina taalube la ci sayyidina limaam sallallahu alayhi wa sallam mu ne sukk naa ci kanamam mu ne sukk naa ci kanamam mu xaddamal ma may wér da mu xaddamal ma may wér mu ne na kudul sama baay nee na kudul sama baay ab taalibe ab taalibe yaa nabiyan min jundihil anbiya yaa nabi min jundihil anbiya wallaay waaw raan waaw yaa nabiyan min jundihil anbiya wallaay xoolal loolu أبي عن شر أحمد يصلي به مهدينا وهو يقتدي وهو يقتدي وأكرم به من أمة ذات السؤدد لن البطاها وابن مريم يختم عليه السلام صلوا وسلموا فوقك الله والبرايا وراءه jërëjëf wallaay di digal anbiyaa wallaay wallaay wallaay waaw loolu waaw Baye Momadou déggal loolu déggal loolu yaa nabiyan yaa nabiyan yéem naa benn yoon yéem bi nga xamee ne bi nga yi ci soldaaram la ci soldaaram la ñu mooy benn yonent bi nga xam mooy benn yonent bi nga xam yaay benn yonent bi nga xam yaay benn yonent bi nga xam say soldat say soldat ay yonent ay yonent lañ loolu loolu kii lay wax sallallahu alayhi wa sallam moo tax man la gënew leen ndànka nee na gënew leen ndànk yàllaa la tànnoon yàllaa la tànnoon ca biir yoon nen ya def la ngay ji yàlla diwaan xaw su man leen man fa diwaan maneel amul solo fii maneel amul fii solo amul fi solo amul fi solo déedéet fii moom am ku fi manit fii ku la fi manit bu mu la na fa man amee solo nee na fa man amee solo. mooy mooy fële. wala al axiratu. wala al axiratu. akbaru darajaatin wa akbaru tafdila boo bëggee gis. boo bëggee gis. manante dëgg. rawante dëgg. dañuy dem àll. fa muy tàmbalee feeñ. 喂。 xoolal loolu rek xoolal loolu ay ki ngeen gëm ay ki ngeen gëm nañu dem ba àllaaxira wallaahi wallaay Momadou na laay Momadou wax ne foofa ëllëg sanga ba nee na foofa ëllëg ne ci la xam dëggantaan nee dayo ëpp nga neelu nga neelu Seyduna Momadou tamuy moom tamuy moom dama kase pour mu ñaari jëmm من لا الآخرة من لا الآخرة فلي فيه فلي فيه بارينا فيه بارينا فيه كوني جوخان كوني جوخان الآخرة الآخرة بسيجي بسيجي يا ويونا aywa aywa kulu taabiin yutbaw ala man tabiyow fi dunya wa loolu mooy li am keroog zalika al yawma yasaru fii fan xayru xalqilaahi wallaay wallaay wa fan li awliyaayihi waaw waaw wa fan li ummati sallallahu alayhi wa sallam zalika al yawma yawma yaqulu kulu rasulin li xawmi laa ubaali seen maam mooy doon xabibul munaadi inda rabbi sil jalaali sama mooy rasul bay laa laa ilaaha illallah sëñ Omar waaw waaw dégg nga loolu ah di jaay Seydina Babacar mi jurus imam Bachir mii tey muy Baye Ablaye Sylla di doomi Thierno Mbaye Sylla moo wax loolu wax la joo xam ne jar naa taxaw joo ju jëri déglu wallahi fu jafee doon imam mooy àllaaxira mooy kër imaam fii nag moom benn imaam benn rek fii la ñuy ay ilima. fii ci ay waaw imaam diw imaam waaw imaam yaa ngi ñoom Assane waaw ñoom Assane waaw ñoom ñii ñëpp ñu waaw waaw fii ngay toog di way. waaye benn imaam dégg nga Baye Ablaye Sylla Abdun kaña wallaay kaña ah tey la tey alaxira amul ñaari ilimaan alaxira xam nga mayee ne alaxira ñaari ilimaan amu fi moo tax yàlla ku fonk Seydina Limaamu moo tax yàlla ku fonk Seydina Limaamu la du uyoo imaam. nee keneen di ko uyoo. keneen imaam nga uyu. nga uyu. ñu ne keneen imaam mu uyu. yàlla ne foofa la xew fii ci àddina. foofa si àddina la xew. ci alaaxira. waaye alaaxira. kenn rek moo fay uyoo imaam. kenn du uyoo naib. kenn sax. kenn du ko am. si boppam. du am. alaaxira amul naib. tekki leen loxo yi waaw waaye um na may sa sa yow ci kanam ah est-ce que wallaay est-ce que waaw cërëb boppam la am ndeysaan wallaay wallaay wallaay laay waxtaan jërëjëf Ah, li leer na nañ. dama ne la. foofa. ah. ñaari imam duñ fa naa yi bi sax dañuy seet ñu def. ah sa waxoon suñu Ablaye wallaay bu boobaa ñun xam ne maa leen gën bàyyi wallaay wallaay bu ñu jàll France ñun xam ne maa leen gën bàyyi allahu akbar ah wallaay moo ne ñu ngi ne daf ko taarifal def fii ci àdduna ah? al imam waaw l'imam moom moom rek rek ko tudd moom rek même si àdduna moom rek si ah, àdduna wax léegi ñu ne waaye nanguluñ ko ka waaw waaw waaye nag sa sax kenn duñ wooyee waaw te guddi gi ñëw wallaay wallaay waaw waaw waaw wallaay waaw wallaay wallaay wallaay wallaay aba waaw wallaay wallaay wallaay laay laay sallallahu alayhi wa sallam moo mel noonu lii rek day wane ne moom la ñu bëgg di ko bége sang bi day wane ni lii mooy wane ne moom la ñu bëgg di ko bége moom rek moom rek kon waxi bàyyi Ablaye Sylla jooju suñu maam bu tedd bàyyi Ablaye Sylla jooju Omar laa jëm léegi tënk na lépp tënk na lépp sëñ Omar wallaay tënk na lépp tënk na lépp wallaay fu jafee dafa ne ya ummul xalqa dafa wax ne ya ummul xalqa newul ya ummul naas de newul ya ummul naas de xalq ak naas bokkul nee na xalq ak naas bokkul newul day jiite nit ñi newul day jiite nit ñi déedéet déedéet ba gën jafe ba gën a jafe alxalq alxalq mbindeef yi yëpp li yàlla bind lépp li yàlla bind lépp moo leen di jiite fa mu jafe nee fa mu jafe fii mawqifil xasri mooy mawqif bu jafe nee mawqif bu jafe muy pangama فسمع بروم دي وح سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون غرادي يا غرادي ni amul bakara ngogu ni yalla xol ni ibadun mukramun ibadun mukramun لا لا دال دي واخ سي نيوم ايتام دي واخ سي نيوم لا يعصون الله ما امروا لا يعصون الله ما امروا ويفعلون ما يمر ويفعلون ما يمر دا ني سيب ني سيب ني غرادو دي جيك تودل نينا غرادو يلا دي جيك تودل يوم يقوم الروح ن يوم يقوم الروح الروح موي جبريل عليه السلام موي جبريل عليه السلام ملاك يب نتوفى ملاك يب ملاك ميكائيل أسرافيل أزرائيل يوم يب يوم يب

du ñu wax dafa mel ni ñoom ñoo noppi. nee na du ñu wax dafa mel ni ñoom lay neex. ñoom lay neex ñoom ñu noppi waa déedéet. comme ku noppi ni waxoo fi déedéet. nee ku noppi fi déedéet. ñemewuñoo wax. ñemewuñoo wax. exception nag mu ngi ñëw. nee na dañu déglu exception bi ñëw. mu ne illa man azina lahu rahman. mu ne illa man azina lahu rahman. fa qaala sawaab. zaalika yawmul haq mu ni zaalika kay dëggantaan mooy bés boobu bésab dëgg baa ngoo neen du fa taxaw neen caaxaan du fa taxaw caaxaan du fa taxaw ñu la war a jiitu di la jiital nee na a yàlla ne comédie la foofu la yem moo am fii sa fii foo geesu gis ka fii ngay gis. fii ngay nit di jiitu. nit di jiitu. ki ko gën topp si ginnaaw yàlla ne yooyu <laughs> foofu lay xew. fii nag moom. fii nag moom ah. Ah. fii yow ma laa tamliku nafsun. yow ma li nafsin shay'a wal amru yow ma izin. déglu leen. gëneeli sang bi gëneeli sang bi bi ñu tax a toog fii ba heure bi ñu tax a toog fii ba heure bi déglu leen bu baax déglu leen bu baax laa yatakallamuun laa yatakallamuun illa man azina lahu rahman wa qaala sawaab lu dul lu dul ku yàlla jox ku yàlla jox autorisation waqaala sawaaba keroog keroog ah ah kaddu gay jib kaddu rek lay doon sawaab lu jub muy Limaamu sallallahu alayhi wa moo toog ak mag ñi ci aaya boobu mu ne laay ëllëg ëllëg ñëpp dinañu ne teg ñëpp dinañu ne man azina googu lay wax exception boobu lay wax azina googu lay wax exception moo tax firi alxuraan wóorul nee na moo bari ku koy firi ak gàkk tey gàkk ñëpp gàkk nañ ñëpp gàkk nañ illaa man azina lahu rahmaan gàkk nañ kan la kan la ah, nii bu boobaa ne laay bu boobaa ñëpp na teg kenn ñemewul wax du jibril du benn malaaka du isa du isa du muusa du muusa du nuux du nuux du benn ab lépp ne teg sang keroog nag moom keroog nag moom ki génn rek ki génn rek mooy ilimaan mooy ilimaan boo bëggee xam kuy autorité bi nee ku fiy wax ilimaan boo bëggee déedéet keroog kay jëkk a wax keroog kay jëkk a wax du ma ne sax jëkk wax du ne sax jëkk wax kay wax daa bu ko wax jeex na ndax bu waxee. résultat résultat yi génn. résultat yi génn bu waxee moom résultat yi. kooku la ñuy wër. kooku la ñuy wër waaw ñu ne kooku la ñuy wër. waaw kooku la ñuy wër waaw kooku mooy ku ñuy wër waaw. ñu daal sant kooku kooku la tax a jóg. Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam. mu ne laay bu boobaa. mu ne bu boobaa. di ngeen dégg kaddu. di ngeen dégg kaddu. bu wax ne. mu wax ni. dama ni. dama ni ñëpp a geesu ne. kan moo ñemee wax. ana ku ñemee wax fii. mu ne di ngeen dégg kàddu gu ne dama ne. mu ne ngeen dégg kàddu dama ne. ñëpp a geesu a geesu. mu ne keroog mu ne keroog. mu ne keroog. doomi Alassane Coumba Ndoye doomi mooy wax ca moom la kàddu doy tukkee. wallahi moo ko wax man. wallahi moo ko wax mu ne keroog doomi Alassane Coumba Ndoye. mooy ka yàlla. mooy ka mu wax pour mu bàyyi la ka wax. la man azina loo ramal kooku ngeen gëm kooku ngeen gëm moo leen fi téye moo ko malaaka yaa beeg nit ak jinne ba jànnama ri ak aw meloom ñun ñaan ñu jënd loo limaamu laay wallaay yeneen te yàgg saa yëpp a teew wallaay laay xutboo ci xaw soo fayam garaat waaye rasuulu laay mooy ka fay iramoo billaahi moom moo dooy limaamu laay kon nag loolu la laay moom madu laay limaamu jërëjëf jëf laay waxtu wi dem na tisbaar jot na tisbaar jot na lay tis tisbaar dafa jot waxtaan wi yóbbu nanu ma xool muy trois heures mooy wallaay kenn du doyal ci moom moo tax mu ne moo tax foofu lañ may werante mu ne ñëw xam mu xam mu ne ku ñëw. mu ne ku ñëw àllaaxira xam ma xam ma. kooku mooy borom àllaaxira kooku mooy sagal. yàllaa ka sagal. yàllaa ka sagal. kon Baye Ablaye Sylla. kon Baye na lépp tënk waxtu wi jeex na laay moom. bii nag. nee bii. di al imaam Mouhamadul Bachir ngeen bala ñoo tëj rek. bala ndax tëj jot na bu baax sax bu baax ñu jéggalu ñëpp itam. moo tax ñu jéggalu ñëpp. da di ëpp sëtam. boo xam ne. boo xam ne. ba mu ñëwee. dafa def xam maanaam lu ñuy wax taxañ ak ndaw. mais allah. Mm-hmm. wallaay Momadou ñoo nekkandoo ci biir kër gi ñoo nekkandoo ci biir kër xam nañ ko bu baax a baax jaarul ci ndaw sang bi nee na Mouhamadul ñu mën ko ko seedee ñu mën ko ko suñuy bët xamal luñ ko loolu xamal ko loolu jërëjëf dafa jóg rek dafa jóg rek macha allah macha allah doon mag def boppam mag la boppam mag def boppam mag fa maamam rëdd fa jaar leen fii jaar leen mu teg fa tànk ku bañoon a gis lu bon la man loolu moom waaw waaw am na yoo xam ne sax du ma ko wax fii sib jotaay ma ci nu mu doon dindee nu mu doon yenn munkar yi yi fii ci ëtt bi dóor sax def na ko dóor sax waaw <laughs> loolu am na lu luñ ci mën a waaye nag. waaw jaru ka. jaru pour wax rek ne. dafa jóg rek. dafa jóg teg tànkam. teg fa maamam joxe. fa maamam joxe. fexe di ko lool macha ci wax ak jëf. ci wax ak jëf. doxal ak sellate doxal ak sellate ragal yàlla ak ragal yàlla ragal yàlla googa ragal daan tëjee ay xutbaam ca aaya ba inna allaha ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun yàlla ànd naag yàlla ànd naag ragal yàlla ak wuy rafetali du lu muy wax nii du lu muy wax ñu bari xamuñ loolu du lu muy wax nii du wax ko pour nii moom la mas di tëjee xutbaam yëpp tëjewu ko ngir loolu. tëjewu da koy dund moom. da koy dund moom. daf ko doon dund. da ko doon dund. loolu la gëmoon di ko doxal. loolu la ko wax ci ay caaxaan. manoo ba mu uyu la. ba bokkul ci caaxaan. bokkul ci ay caaxaan. doxul ci ay caaxaan. ku ko bañoon la. ko bañoon la. mbiru àddina. noonu. foofa la tegoon tànkam foofa la tegoon tànkam wax naa leen wax naa leen miraaran miraaran defe naa nëgër ni daaw defe naa nëgër ni daaw ba ci ren sax ba ci ren ni mu doon ubbee yoo ñaari ay ñaari ay ñaari ay alxuraan la doon ubbee koñ bi yëpp tànk gi yëpp tànk gi yëpp benn ba benn ba in yansurkumullahu in yansurkumullahu fala xaaliba lakum wa in yaxzulkum faman zal lazi yansurkum min baadi ba ca des in yamsaskum qarxun faqad massal qawma qarxun mislu wa tilka al ayaamu nudaawiluha bayna naas xam ngeen ni ñaari aaya yooyu lu yéeme la moom la doon dund moom gëm na bu la yàlla dimbalee taxawak ak yow kenn man walaa not kenn mënul am ci sa kaw victoire ci sa kaw victoire. moom la. moom. a wax démb. wax démb. ci maadiw. ci maadiw ak ñi muy ànd ak mu ne laa yaduruhu man xasalahu. ku leen bërgël. ku leen bërgël leen. gecci leen doo leen lor. yàlla ànd ak ñoom. yàlla ànd ak ñoom. dañu am nasru min allah. waaw. mom dal bo mané fexe. mom dal bo mané fexe. ba tek sa tànk ci wuy rafetal ni ba tek sa tànk ci wuy rafetal ak ñi ragal yàlla. ñi ragal yàlla. yàlla taxaw sa wet di la dimbali ta do am ab defet. do am ab defet mu mu jàngal la itam ci benen ay bi. mu jàngal la ci benen ay bi. adina addina day neex tay day neex tay ëlëk mu nax lu la dal tay day dal sa morom day dal sa morom ëllëg. aaya boobu wàcc woon ci xare yi. aaya ba wàccoon ci xare yàlla di leen xamal ne bu ngeen amee ay blessure ba nar a yonjax ñoom it dañuy am blessure dañuy gaañu comme ni ngeen di gaañu ay bés la yoo xam ne yàlla sunu boroom daf koy ay ayloo bu dalee ñii tey ëllëg mu dal ñëpp lu la dal lu ne day dal sa moroom lu dal sa moroom dal la tey jullit day dëgër ci fondement yooyu la doon wëy aaye sax moo gën a yaatu lool waaye ci loolu la doon wëy di ko di ko wax fu mu mën a taxaw waaw nun ñii ñu daa wéet ak moom daf nuy wax li ñu war a def ak li ñu war a moytu ah, matoon jiit lool macha allah jiitanu ba ndeysaan am na mbir yu ñu marqué ci ci nu mu doon toppandoo maamam sallallahu alayhi wa sallam léeg dañuy seddoo xaalis ñun ci sunu biir ñun ci jël wàllam ku ne mu jox la ba noppi nag wàllam mu séddoowaat ka ak ñun dégg ngeen wax jooju lu maamam waxoon lu ngeen am jël leen lu ma am ñëw leen ñu bokk ñun dañ ko doon dund moom ku ne day am nangam bu ñu seddalee ba noppi te nangam loolu ñun ak moom ñoo ci yam léegi mu jëlaat wàllam yónneel ma di yónneel ma yónneel te booba mu ñu ëpp sarge te kenn du ko xam daxawaay yoo xamee ne waxtu wee jot ah mu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal fa maamam joxoñoon jaar na fa dan ka daan wax boo meloon neneen nun ñu mel noonu ndax da juddu fekk la nga mag si si ñun âge ya soriwul woon waaye moo ci magoon. nee na âge yi soriwul waaye moo ci magoon. waaye nag. waaye nag alhamdulilah rabbil aalamiin teg tànkam fam ko war a. teg tànkam fam ko war a. kon yàlla na yàlla yokk leeram yokki maxaamaam taas ñu si barkeem dañ ko jugalaale ci biir waxi maamam ak jëfi maamam ndax da ko doon toppandoo ba jóge fi. ala kulli xaal yàlla na yàlla nangul mbir yee gën a yaatu li fuuf ah laay Mamadou. ma fàttaliwaat asaka yi. ma fàttalikawaat asaka yi. Hmm. asaka yi. dégg ngeen li ñu wax. te du loolu rek. te du loolu Limaamu alayhi salaatu wa wax na ne. wax ku ne ci yéen. ku ne ci dafa doon. farata. bu gàllu ci saw du la wàcc mukk. boo ci amee bor fayka. maam Baye lay ne du du dañ. nan ci farlu te xam ne wallaahi dama gën ci yàlla li ñu yàlla di tëkkoo ëllëg day dal ak koo mën a doon li la yàlla di tëkkoo dégg ngeen ko fii day dal inna azaba rabbika la waaqi mu ne maalawo min amul kenn ku ko mën a fekk laayeen ñoo gënoon a jekk ci di dund asaka ay laayeen di daw génn asaka ak ni ko Seydina Limaamu Laay alayhi salaam wooye fale ba ñi ko mën a génne bari lool man ngaa xaw a wax ne ñëpp rek kiy joxe ki ñuy jox kon loolu lépp laay mu mën ba maam Baye lay defal nu koy sare ay laayeen taxaw fële di wax wax yoo xamee ne maar day taali ay li may gañe doyu maak doyu la ba tax la muy xat xat xat nga téye wàllu yàlla doo ko génn force di nga ko dugal feneen la moom moo muy wax bu ngeen amee day ndawtal si lu xat loolu bu ko ab goroom seet see mu jox ko paas si suñu xat loolu te yamuy jox yëpp yu amul benn kii la te mooy ëpp asakam kon nag laay Momadou dinañ ci ñëwaat ci jamono yi ñu toll ndax fàttali xalifa bi lii mu ñu soññ ngir ñu soññ ka laayeen yëpp laayeen yëpp bu ñu génnee seen asaka jeex na ñàkk bu jeexulit dina fi dina fi néew lool waaye nag waaye nag yi mbugal yi ngeen dégg jomb si kenn yàlla day mbugal ñëpp yàlla day mbugal naa isaaroo lay da ko wax ak njabootam ñëpp a dégg ba ba dënnu yey am sama ñoom yaay ñoo ñoom ñëpp mu nga woon sa kër ga mu ne ñu tiit di yuuxu mu génn ne leen lan moo xew mu ne yéen ñii de. mu ku ci jaamuwul yàlla. ku ci jaamuwul du ay laayeen lay waxal de. ay laayeen yu yeewoo ci këram lay wax. yu ci këram. ku ci jaamuwul yàlla. ba dee. malaaka. ñi yàlla di yobal ci yow. bu ñuy ñëw riiru dënnu gi la ñuy yor. te egseeguñ te egseeguñ. si yow kon ab laayeen. mënu la rëcc. yàlla. feek mu ngi jalgate. man ak man nii. du man mii man di wax ak sama moroom ñoo ci yem manuma bëtt mbugal moomu feeg maa ngi jalgati laay Mamadou Laay jërë ngeen jëf laay maxtaar ñu jàng ñetti faatiha ñetti ixlaas